Mustafa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 ngeen jëfati mbokk auditeurs yi Mouhalim info tere seer di benn waxtu ci bëccëg toftal na fukki simili fii ci groupe Mouhalim numéro 6 asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi leen di nuyuwaat baax di leen ziar fi ngeen mën nekk ci biir réew ak ci bitim réew wala groupe Mouhalim di fi taataan ay xabaar tey aljumaa juróom-ñett fan ci novembre ñu faram-fàccee leen li nu am cee xabaar ci subaak léegi première journée des forces armées sous Diomaye mi son excellence président Bassirou Diomaye Diakhar Faye le chef de l'état daal dina jiite tey ji ci kaajal Diop li nga xam ne kon moo di journée des forces armées mooy bis bi ñu jagleel ñi nga xam ne kon ñoo di jàmbaar yu réewum Sénégal te mu ren nag ñu ngi ko daal di kon teg ci wàllum euh, souveraineté technologique et des forces armées kon loolu mooy thème bi. bis bi nag nekk bis bu am euh, solo di daje boo xam ne kon doo dox ci diggante chef suprême des armées muy kilifa réew mi ki nga xam ne moo jiite armée bi yëpp. Euh, nga xam ne kon ñooy ñi nekk ci armée Sénégal ñëpp mooy force bi mooy ñi xam ne mooy général yi caaju kon. maam bis la boo xam rek dañ koo jagleel ñi nga xam ne kon ñoo di armée bi moom kilifa gi nag tey mooy doon première boo xam ne kon teewoon ki dëpp nga ko falee ci réewum Sénégal ak léegi mu nekk nag occasion ci moom mu nag présenté waale ci seen kanam feuille de route bi nga xam ne ak itam bëgg-bëgg bi mu am ngir armée réewum Sénégal mu gën a moom boppam waaye itam gën a itam effectif bi gën a daal di kon ñoŋ waaye itam mboolem matériel yi nga xam ne tuwoon nañu ko tamit euh, kilifa gi wax daal yoon la ci fas taxaw ngir fexe ba euh, ñu gën di nekk référence ci dendu Afrique jëm gi tedd jii di Thierno Madani Tall jébbal gouvernement bu réewum Sénégal don yi nga xam ne kon jot na koo dajale ngir ñu dimbalee ko ñi loru te nekk fële ca boor yi fëlëf Sénégal ginnaaw bi nga xamee ne sunu borom ñoo naa ko dogalam fëlëf bi kon daal di jógee fa mu newoon fekki askan wi fa ñu dëkk ca Bakel ak boori Matam ca li ko wër ñu nekk kon ci ay jafe-jafe lool taxawoon na kon ki nga xam ne moo nekk ci bopp njabootu famille américaine di jëm gi tedd jii di Serigne Thierno Madani kon woote woon ngir nag ñu daal leen di daal taxawu sénégalais képp ku nekk lam man rek waaye koy génne ngir ñu mën ko daal dimbalee ñi nga xam ne kon ñoo daal di loro loolu nag kon tax na am na ay lu bare bay loo xam ne kon daal na koy jébal ministère de l'intérieur muy ay matelas ay jumtuwaay maanaam ay yére yu ñuy sol ak itam euh, dund daara alimentaire waaye itam ay produits de nettoyage yo yëpp kon bokk na ci ak itam alal joo xam ne tam ndax jot na ko jébbal ministère bi lépp kon ngir ñu daal jébbal ko ñelaru fële ca boor yi Matam ak la ko wër jaare ci fleuve Sénégal dafa am nag benn point de presse boo xam ne amaloon nañu ko fële ca mosquée Omarien fële ca Dakar fa la ñu kon daal di waxee lu mel moom nag jëmm gi tedd ji di Serigne Thierno Madani taal kon cant bu baax gërëm boolem ñi nga xam ne kon jot nañoo wuy si xaat ci woote gi xam na kon woote na ko ki ngeen gis ci image bi nii lii ay ndimbal yoo xam ne jot na ko dajale bàyyi koo ko ci li nga xam ne kon moo di ci askan wi ñenn ki ñoom ngir ñu dimbalee ko victime yi yi te la ko waral moo di fële euh, ko nag ministère de l'intérieur muy gouvernement bi ngir nag daal leen koy yeggee euh, ministère de l'intérieur nag di kañ bu baax a baax jaajëfal euh, jëm gi ji ci lii nga xam ne kon def na ko moom nag Serigne Thierno Madani Tall li mu def kon def ko rek ci turu mbooleem kilifay diine yu réewum Sénégal le GAIPES offre 37 million pour les sinistrés de Bakel et Matam le groupement des amateurs et industriels de la pêche GAPES def nañu ab don bu toll ci 37 million francs CFA fanweeri million ak juróom-ñaar ngir sinistre yi nekk ci fële ca Bakel ak Matam te inondation waral ko loolu nag di nekk benn acte de solidarité ngir ñoom daal engagé wu taxawu nekk ci wetu population yi nga xam ne daal loro nañu lool fële ca boori Bakel ak maatam te fleuve Sénégal daal di koy waral bu sukkandikoo ci Libaas Diop mooy président GAPES daal nee na ñoom. ndimbal muy soutien financier bi dafa ñëw rek ngir daal ñi jox ko njaboot yi ñi nga xam ne kon dañu daal di loru ci catastrophe bi nga xam ne am na waaye itam gën a itam euh, renforcer euh, sécurité yi ngir ñu mën a gën a taxaw kon ñi loru root na nekk ci warab yi nga xam ne fi mu ne daal jëriñoo ko jafe na lool bi ñu doon jëbal nag euh, ndimbal loolu muy chèque bi teewoon na ko docteur Soxna faatu Diouf ministre des pêches moom nag mu daal di wax daal am mbégte waaye itam rafetlu lool li nga xam ne GAIPES def na ko wax ki turu kilifa réew mi ak turu ci ilimaane jëwriñ yi ak mboolem ñu nekk ci gouvernement bi daal lii ñu def lu am solo itam ñu ngi ciy soññi ñeneen ñi xam ne daal mën nañu ko ñu def na ñoom ngir nag ñu soutenir ñi nga xam ne kon ñu di population yi nga xam ne loor nañu lool buñ sukkandikoo ci soxna Fatou Diouf daal nee na sës bii def war naa kon soññi itam ñeneen secteurs yi ngir nag ñu jug dimbali population yi nekk ci ay jafe-jafe ah, GAIPES nag en tant que acteur clé ci sa pes moom nag daal di def def jëf ji kon ñoom daal ñu ngi ko mi ngi koy rafetlu kon ci turu euh, kilifa réew mi yëpp waaye tam di wax ne daal lii acte sunu citoyenneté la bu am solo te itam war naa itam nekk lool dina gën a itam soññi ñeneen ñi ngir lu ñu wàllum solidarité nationale bu réew mi nekkee ci léeg-léeg ay jafe-jafe ñenn ñi ñëpp jug ngir taxaw leen kon tax na jëwriñ ji kon gañ kañ na leen baax a baax ñoom gaay pes ñi yëkkati 37 million fanweeri million juróom-ñaar ngir ñu dimbalee ko ñi loru ci diggante Bakel maatam Matam. affaire Aziz Dabala Nabou Leye bénéfice d'une liberté provisoire Nabou Leye moom day nee ñu ab fecckat la waaye itam nekk itam actrice moom mii am na liberté provisoire bu ñu sukkandikoo ci kaw see xabaar gii di Walfu Net ginnaaw bi nga xamee ne ay avocat am ñu déposé woon depuis 21 octobre ngir sàkku daal yoon daal di koy xaw a féexal. moom nag dañ koo jàpp yóbbu ko ci kaso bi njortoon coom daal ne loxoom taq na ci lu ñeel faatuk Abdoul Aziz Dabala euh, ak euh, koo xam ne daal ab xeetu na ku ñuy wax Waly moom Naby Leye mii nag bàyyi nañu ko waaye kon dafa daal kon nekk sous contrôle judiciaire maanaam daal bàyyi nañ ko dañ ko ci tegal ay condition condition yoo xam ne daal faaw mu daal di koy wàccoo la xaarañi nag ba kor ko ñu koy daal di atte ci mbir mi nga xam ne ci ñu ko téye woon kon daal ci gàttal euh, Walf Net xamal nañu ne kon nabu Leye daal dinañ koy may liberté provisoire bàyyi négandiku tréwul nag yoon day wéy di ko tëg Madiambal Diagne fixe la date qu'il souhaite répondre à la sûreté urbaine Madiambal Diagne moom day wax na waa sûreté urbaine ne leen date bi ci la bëgg a ñëw wuy si leen ginnaaw bi nga xamee ne kon ñoom enquêteurs day nañu dañu ko bëggoon a jébbal convocation al démb ci alxamis gi juróom-ñaar fan ci novembre ngir nag mu ñëw wuy si ci ñaari plainte yoo xam ne maître Bamba Cissé moo ko def di avocat Ousmane Sonko bu ñu sukkandikoo ci libération nag ma Madiambal Diagne moom dafa xamal enquête yi daal ni moom fi mu ne nii dafa nekk ci campagne kon mu mënul ñëw di wuy si moom daal kañ lay mën a ñëw wuy mooy bu élection yi jàllee ba suba daal dina ñëw fi ne nii kon mbir mi mi ngi ci loxo parquet bi ndax dañu koy nangoo li mu sàkk waa wala déet en tout cas ci fàttali le 10 août gii ñu génn 10 août gii ñu génn wala boog gëlee ñu génn pôle avocat yu ilimaana jëri réewum Sénégal Ousmane Sonko dañoo annoncé kon ay plainte Ousmane Sonko kon déposé woon plainte jaara ci avocat wam ngir daal daa bari loo xam ne ma jëmbal jaan mii daf koy ci di ko teg ci kawam di ko attaqué waaye attaque boobu nag attaque systématique la yoo xam ne daal teguwul fenn léeg daal ay kàddu yu ñaaw sax daf ci daal di tegi te itam loolu bokkuwut ak critique objectif bi ñu xam mooy di critiquer nit ki ci wàllum ni ñu yoram réew xëy na daal comme ni mu yore wala ni mu doxalee kon jaaduwul waaye daal moom critique yooyee wàllum attaque systématique systématique la systématique nga xam ne daf cee jaaree léeg-léeg di ci boole yoo xam ne daal jàpp na ne xotti war maam la taxoon kon ay avocat wam daal jëloon dogal yóbbu ko ci yoon lool kon moo tolloon ñu ko ñu porte ko plainte buñ sukkandikoon ci ko bindoon nga xam ne ki ko signé woon kon moo di coordinateur bu pôle des avocats pôle waaw pôle des avocats de Sonko muy maître Bamba Cissé kon ma jàmmal teen loolu kon ci lañu ko daal bëggoon a wooloo waaye daal nee ñu dafa xamal parquet bi ni leen wala boog daa xamal enquêteur yi ni leen du ma mën a tant que campagne bi jeexul bu ne élection yi jàll bi mën a ñëw bu ñu sukkandikoo ci libération fi ñu ne mbir mi mi ngi ci loxoy parquet bi ba xam da koy nangul li mu wax waaw wala kon daf koy force mu wuy si Ousseynou Ly s'adresse à Macky Sall des vies brisées des familles endeuillées kilifa goon ci bopp réewum senegal wax li waral mu dellu siwaat ci seen politique bu réew mi tax sax mu nekk te de liste bu coalition takk wàllu moom day li mu xamle mooy daf koo def ngir sàmm jàmm ak démocratie bu réewum Sénégal lettre bu gudd sax la daal di bind kon wax ci réew mi ba muy dem fi ma ko bàyyi situation yoo xam ne ci la nekk waaye itam digg yoo xam ne itam digg na ko sénégalais ci bu fekkente ne daal wuy si nañu ko ci lim leen di woo di woteel lust lust takk wàll ngir ñu am ndam masuwétu ci bopp réewum ca bopp assemblée ci biir assemblée nationale kàddu yi mu yëkkati nag réaction yi bari la jur bokk na ci nag Ousseynou Ly bi di ministre porte parole président de la république kon moom daal jàpp ci président Macky Sall kàddu yi daal kàddu yi ko jikkoom naqari naa xam waaye itam koo xam itam wax ju ñaaw képp daal la daal di jubli ci la mu def maanaam daal wàllum hypocrisie ak wàllum indécence la jàpp ci wax ji moom Ousseynou di daal euh, wax fàttali président Macky Sall sax li nga xam ne kon amoon na ci régime ba sax ay bakkan yoo xam ne rot nañ ci te lépp kon mu amoon ci li nga xam ne kon moo nekkoon ci bopp réew mi Ousseynou di ne président Macky Sall bi mu fiy nekk bokk na ci ñoo xam ne ñàkk na seen bakkan ndax moom muy ku ñuy wax Baye Fallou Sène Siria Diallo Bouna Sarr Alpha Yoro Yoro Tunkara ak ñeneen ñoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan jaara ci kon répression bu tar bi nga xam ne doon nañu ko def ci sénégalais yi ci ginnaaw bi ñu génne kon doon fippu mu ne daal histoire du ma sa fàtte mukk li nga xam ne kon moom la président Macky Sall def ci bu nekkee ci bopp réewum Sénégal def ko ci kaw askan wi nga xam ne daal ab régime daal dina fi kon jur ay martyrs yu bëree bare bëri waaye itam Ousseynou Ly tamit wax na daal ah, moom wax na président Macky Sall bi mu fiy nekk moom nekk foon lu may kon réprimer di fitnaal opposition bi waaye tam di xañ nit ñi seen liberté ak seen démocratie moom moom mooy la tey jii moom mooy ñuy wax daal ne kon mooy artisan boo xam ne mooy ñëw ngir saxal ci réew mi jàmm ak itam sàmm démocratie réew mi te moom bi mu fiy nekk wàllum démocratie ak fitnaalu askanam la fi nekk ba nu mu fi jugee moo tax mu di ko laaj ne daal naka nga moo a nekk ca bitim réew naan da ngay jéem a euh, di tante ne yow daal da nekk koo xam ne da ngay défendre droit saaw askan askan wi nga xam ne yaa leen fitnaal bi nga fi nekk ku mel ne président Macky Sall naka la mën a waxee ne moom day bëgg jàmm daa bëgg daal saxal jàmm ci réewum Sénégal ci koo xam ne jamono ji mu ci réew mi moo fi indi fitna musiba li réew mi nekk yëpp moo ko fi andi kon moom nee na jàmm ak démocratie lay lay sàmm moom bi mu fi nekk ñu bëree bëri ki seen ay xàq ak seen ay yelleef daf ko leen daal di xañ nekk ci bitim réew naka la mën a nekkee nan kon day sàmm ak ak yelleefi peuple bi ñi nga xam ne kon ba mu fi nekk fitnaa leen la dëkkoon waaye tam naka la mën a wax daal day sàmmu jàmm ak itam fexe ba Sénégal yëpp nekkaat benn ci ko xam ne bi mu fiy nekk jiite réew mi ci la réew mi kon dem ci ak féewaloo waaye itam réew mi dugg ci guuta kon Sénégal dund jafe yu bëree bëree bëri kon daal moom Ousseynou Ly tamit bind na ab lettre bu gudd itam mooy itam tom président Macky Sall wax ci itam ci doxalinam ak itam jàpp ne daal bi du amul benn njariñ te sax waroon na ko rusa bind di ko wax naan dafay ñëw ngir bëgg a dimbali askan wi ci loo xam ne bu mu fi jógee yàggul te leen fi def mi ngi ne yàng kenn fàttewu ko 17 ressortissants disparus lors d'une tentative d'émigration clandestine à Bapalel njàqare ak njaaxle la ñu nekkee ña dëkk ca Bapalel village bu nekk ci Dande Mayo commune de Ndendori département de Kanel 17 sën fukk ak juróom-ñaari xale yoo xam ne jamono ji nañu kenn gisu leen ñoom nag dañ doon jéem a dem ca Europe bu ñu sukkandikoo ci le soleil digital ba tey le soleil di wax ne bu ñu sukkandikoo ci même source bi ñu joxe xabaar bi leen jox xabaar na ñoom ñi nag ba ñuy départ ña nga déparé woon ca Nouadhibou di ville bu nekk fële ca Mauritanie dañ doon nag dem fële ca Espagne duggoon ci gaal waaye daal ñoom ñoo ñii di fukk ak juróom-ñaar yi fekk baax ci euh, fa ñuy village bi ñuy wax Bapalel nekk ci euh, fële ca Dandemayo commune bu Ndendori département bu Kanel ñoom daal ba léegi kon kenn gisu leen taxoon seenu askan nekk ci njàqare ak njaaxle. njàqare ak tiitaange la lenn ci doomi réewi Sénégal ya nekk fële ci réewum États-Unis di dund fi mu ne nii Sénégalais ya nekk ci réewum États-Unis te nekk fa nag situation boo xam ne daal duwul bu jaar yoon maanaam daal dañ fa dugg ci dugginu jaarul yoon ñoom day dépp bi nga xamee ne Trump farwaat na ci bopp réewum États-Unis tax na fi ne daal ñu bari ki ñoom kon daal nañuy jaaxle amul njàqare lool ci seen ëllëg naqat Trump mii moom ba muy campagne dafa am lu mu doon wax ci migré yi ne daal bu faloo ñu bari ki ñoom ñu duggoon ci réew kon dana génnewaat ndax dafa jàpp ne kam fa wuutu wala boog kam fa nar a wuutu doxalinam moo jaaru yoon ba tax ñu bari bari kon dugg fa ci lu jaarul yoon. sam moom sax Trump daf leen di kon euh, daal taxé ñoom ñoo ñuy di migré ñi xam ne kon na nañuy dugg ci Amérique ne daal ñoom ay kon criminel lañu ay rekat lañu ay defkati ñaateef lañu. moom mooy nag kon falaat nañ ko mu nekk le quarante septième président bu réewum États-Unis tax nag communauté sénégalaise ba nekk foofee daal seen situation nag daal xaw leen am ñaam ci njàqare ñi nga xam ne daal dañ nekk en situation irrégulière maanaam daal nekkinu jaarul yoon am nañu njaaxle ci seen ëllëg ñoom ñi nga xam ne daal daanaka sax am liggéey fi na jafe na leen Trump day bu fekkee la mu waxoon def na ko ñoom bu ñu wetu kon ñu bëri kon dañ leen dellusiwaat ñu xamal nag waaye dafa daal ne kon seen ëllëg daal mi ngi ci loxo suñu borom lañ ko daal di teg ndax daal am nañu njaaxle ak njàqare ci falu gi nga xam ne kon trop faluwaat na ko ci bopp réew ma ñuy ñuy ñuy tiit mu génn leen réewum Amérique bi nga xam ne ay coono rek lañu dal la ñu daj laataa ñu faa àgg. Sonko un procureur en campagne. kon see xabaar gi di Le Quotidien bi daal ne Ousmane Sonko day moom dafa mel ne fi mu ne nii procureur bu nekk ci campagne moom leader Pastef bi Ousmane Sonko wuy kon daal di bàyyiloo xel Sénégalais yi di wéy di itam def ay révélation révélation yu doy waar. ci wàllum détournement ak itam di menacer waxtu nekk léeg-léeg ñenn ñi xam ne ñoo ay adversaire am Ousmane Sonko ginnaaw kon ba mu révélé daal ne am na lu ëpp mille milliards bu nu gis kon ci benn compte bancaire nañu itam waxaat na beneen révélation boo xam itam bii yoon benn marché à gré à gré mooy marché bu nu joxe ci lu marché boo xam daal dañ koy joxe ci yaama neex boo xam toll na ci cinq mille milliards ne gis nañu ko ne daal gis ñu benn gis nañu marché gré à gré yoo xam toll na kon ci cinq mille milliards Ousmane Sonko xamle ko bi nga xam ne maa doon jaar fële ca Agnam ca di fiyeef bu ki nga ne moo di Farba Ngom foofee ko maa da ko fay menacé ne daal na xam ne ah élection yii mooy doon dernière élection yi bokk ci réewum Sénégal loolu kon war ko xamle Le Quotidien nag kon jàpp nga ne Ousmane Sonko mii daal moom ah, ku doy waar la moom daal fi ne dafa mel kon ab procureur ci campagne di xuppaatee ko daal menacé waate ak itam wéy di joxe ay révélation Ousmane Sonko et l'ami des homosexuels di Bougane Gueye Dany leader bu gëm sa bopp Bougane Gueye Dany daal dinay lancé défi tête de liste nationale Pastef bi di Ousmane Sonko ci mbirum borom ñaari ah, tur yi maanaam daal ci loi bi nga xam ne kon lañ fi doon wax ci criminaliser mbirum borom ñaari tur yi buñ sukkandikoo ci patron bu D-Media Bougane Gueye day nee na Ousmane Sonko question boobu yi doo leen déggati mukk mu wax ci nee daana ci wax bu njëkk ngeen gisoon mu daan ci wax fu mu nekkee yëkkati kàddu ci wax waaye nag du leen gisati mu wax ci la ko waral mooy moom mbirum maanaam ñi yëngu ci mbirum borom ñaari turi yi dañoo nekk ay xaritam ndax dalal na leen fii ci Dakar ñu ñëw fi kon daal ñi yëngu ci lu boobu daal Sonko dafa am ak ñoom jege ñaale maanaam ci gàttal daal seen xarit la moo tax du ngeen déggati mukk wax ci mbirum borom ñaari tur yi loolu la kon Bougane Gueye Dany kon daal di ah, wax xamle ko nag ca département bu Tivaouane ca Taïba Ndiaye fi nga xamee ne kon coalition sàmm sa kàddu fa la ñu nekkoon démb moom Bougane Gueye dana ko yëkkati kàddu yooyu xabaar bi ñu sukkandikoo ko ci Seneweb jurbel Pastef les patriotes dépose une plainte contre Anta Babacar Ngom et X parti Pastef les patriotes déposé ñu a plainte juróom-ñaari fan ci weeru novembre démb contre Anta Babacar Ngom ak ñeneen ñoo xam ne daal ay individus non identifiés lañu ginnaaw ay actes yoo xam ne daal jàpp na dañ ko def ngir perturber seen campagne électorale bi ngir législative fële ca Diourbel plainte bi ko déposé moo di maître Abi Naar Ndiaye mu daal di koy def nag ci ay accusation yu bari yoo xam ne kon mi ngi leen koy toomte toppee muy Anta Bakar Ngom moom yi ak ñeneen ñoo xam ne kon nit la ñu xàmmeewul bokk na ci yàq alal yi yàq seen alal ak itam def li ñuy wax coup et blessure volontaire maanaam door nit ba gaañ ko ci loo xam ne yaa daal di tey ak itam violence ak ay ak itam yeen yoo xam ne kon daal mi ngi leen koy toppee ñoom ñii nag ñuy euh, tuuma yooyu kon nañu ko daal di kon visé ki nga xam ne moo di Anta Babacar Ngom ak ñeen nit ñoo xam ne daal euh, révélé wuñu leen waaye ñoom daal lu ñu dem ci yoon euh, dañuy jàpp ne kon dafa am ay mbir ñu def ngir andil leen jafe-jafe itam yàq seen ak itam déstabiliser leen ñoom mouvement euh, ñi faral Pastef foofee ca Jurbel ci ginnaaw ay mbir yoo xam ne daal nee ñu dañ leen ko daal def foofee ba ñu fa ñëwee loolu moo tax kon Pastef les patriotes ña fare ca Jurbel yóbbu nañ ci yoon Anta Babacar ngoom ak ñeen nit ñoo xam ne daal ay individu no identifié lañu maître Abi Naar Ndiaye moo déposé plainte bi ndax Abdoulaye Diouf Sarr dafa nekk ci yoon ngir fekk waa Pastef loolu de ab laaj la en tout cas daal nee ñu yàggatul dina amal déclaration officielle buñ sukkandikoo ci kaw seen xabaar gi di lii quotidien Abdoulaye Diouf Sarr noppi gi nga xam ne noppi na ko moom mii doonoon maire bu yoof jural na nag ak njaaxle responsable APR yu bari depuis daal bi ñu lancé campagne bi moom ancien ministre de la santé bi dafa rek toog ci wetam ci wala boog toog ci ab ruqam noppi deful benn déclaration amul itam benn ak boo xam ne daal dina koy def loolu nag tax na ñu commencé fësal ay rumeur di wax ni dafa nekk ci yoon ngir dem fekk Ousmane Sonko waaye de loolu am na ay jege ñaala yoo xam ne weddi nañu ko taskatu xabaar bii di soxna Aïssatou Diop Fall daal di wax ci seen youtube am bii kon ne daal lu mën a nekk la ngeen gis Abdoulaye Diouf Sarr dem fekk waa Pastef loolu kon daal di ah xamle ginnaaw boo xam ne daal kon am na ay sources yu mu sukkandiku ay sources yu siir ba mu fësalee loolu yi nag lenn ci ay jege ñaaleem génn nañ weddi xabaar bi nañu daal loolu soxna si wax dara amu ci te sax nag yàggatul moom moom xam ne kon moo di Abdoulaye Diouf Sarr dina amal déclaration officielle wax nag lan mooy doon ëllëgam ci euh, ci wàllum politique waaral xabaar yi ñuy fësal ne kon dafa nekk ci yoon gi dem loolu moom ay jege ñaaleem weddi ko buñ sukkandikoo ci kaw see gii di lii quotidien donte nag moom waxul dara depuis daal ba ñu campagne bi léegi daal dafa toog ci euh, daal ruqam rek ne waxul deful dindiwul. keneen ku génn itam weddi ay xabaar yu ñu ci moom moo di Cheikh Omar Anne jaara ca nag tuumaal kilifa goon ci bopp réewum Sénégal président Macky daal dal ci kawam waaye itam wax ne lii moo nekk ci ginnaaw. Cheikh Omar Anne ñu di ko wax la Thierno Danjum moom de daal dinay réagir ginnaaw accusation ginnaaw ba kon ay ay xabaar ñuy fësal moo daal di kon réagir dal ci kaw bu baax a baax nag kilifa gën ci bopp réewum Sénégal jàpp ne kon lii am lépp moom la moo nekk ci ginnaaw ndax kat dafa am benn vidéo boo xam ne partage nañ ko lool taskatu xabaar bii di soxna Aïssatou Diop Fall di ca fësal ne moom Cheikh Omar Anne mii dafa nekk ci yoon ngir dem fekki parti Pastef ànd ak ñoom loolu yi nag am mu daldi kon tontu jàpp ne daal dafa am ñu nekk ci li ñuy waxoon tentative de déstabilisation seen coalition bii di jàmm ak njëriñ bi xam ne Amadou Ba moo ko daal di ah, jiite. Cheikh Omar Anne mi nekkoon ministre ci ay daal nee na lii am ngeen gis ko xam leen ne kenn dong moo ko orchestré muy président Macky Sall moom moo nekk def ay pexe ngir affaiblir néewal doole sunu ah, coalition bii. nee na nag yàggatul ki nga xam ne moo di Amadou Ba dina ñëw ca Njum ñoomal fa nag meeting bu mag a mag a mag. donte nag ay complot am na ci ñenn ci ay responsable yu nekk ci département bu ah, Podor waaye daal du teree kon coalition Jàmm ak Njariñ moom tey la gën a engagé wu nekk ci ñoom ànd ak ñoom tey tam daañu leen ko wan ci meeting bi nga xam ne dañu ko amal foofee ci lu yàggatul moom ancien ministre de l' enseignement supérieur Cheikh Omar Anne critiqué nag bu baax a baax ay adversaire am bokk ci kon président Macky Sall même jàpp na daal moom dafa bëgg rek wéy di contrôler paysage politique bu réew mi moo tax kon mu jaara ci di fësal ay rumeur moom mi nga xam ne daal kon gis na ni fan yi dafa am ay ndaw ñu bari ñu jël dogal di fekki Amadou Ba loolu nag moo ko daal di poussé moom ak waa takku wàllu ñuy nag def ay pexe ngir kon daal daal di naxasal ak itam ñaawal ak itam yàq seenu der waaye tam jéem kon leen a jabolisee ndax kat nee na président Macky Sall moom du nangu daal kenn taxaw ci kanamam moom daal nangu moom daf koy sene kenn koom am ambition nekk ci kanam président Macky Sall du nangu loolu waaye nag na def ndànk ndax mi ngi koy menacé moom Cheikh Omar Anne daal ne daal euh, bu muy tu kon dina riposté euh, waaye dem menacé mboolem ñi xam ne kon ñooy def ay yii nu daal bu fekkente daal seen attaques yi dëkkul wala boog seen yi ñuy def dëkkul mi ngi kon daal wax ne bu muy tudd dina génn te bu génnee kon dina wax lu gën a garaaf li nga xam ne kon wax na ko ci kasa daal kon moom neena na lii ñuy fësal dara amu ci nee na tey la gën a ànd ak ki nga xam ne moo di Amadou Ba di wax nag tas ko xabaar bi di Soxna Aïda Diop Fall daal di ko fàttali principe yi nga xam ne moo nekk ci wàllum tasaru xabaar tasaru xabaar kat léeg-léeg yenn xabaar su ko jotee te am possibilité mën ko wérlu lëgganti moom mooy mu wérlu ko ba noppi laataa nag muy def lii mu jàpp ne kon président Macky Sall daal moo nekk ci ginnaawam rek mooy def ay pexe ginnaaw bi nga xamee ne kon dafa collaboré ak waa Pastef ci lam doon def kon loolu la wéyal rek nekk ay pexe ngir yàqub deram waaye daal moom nee na lépp luy xeetoog ànd ak Pastef loolu dara amu ci tuumaal na sax ancien ministre de l' intérieur Abdoulaye Daouda da nga xam ne kon daal moom itam bokk na ci nga xam ne lii am bokk na ci li nga xam ne kon moo ko daal waral moom daal nee na amul benn lien bu mu seq quoi parce que xabaar yooyu dara fisu ci amu ci la muy waajal mooy meeting bu mag bi mu na maamal foofee ca njum ah, ci diggam ak coalition ah, ki nga xam ne kon moo di Amadou Ba mi leader bu coalition jàmm ak njariñ kon ma ngoog jërë ngeen jëfati mbokk ci Mouhalim Info lii li ñu mën cee xabaar suba ak léegi juróom-ñett fan ci weeru novembre dëppoog juróomi fan ci weer wala rakkaati gàmm dig leen daje koon ci xabaar guddi gi seen kolte moo sunu sàkk wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa hamdan liman yafalu kulla ma